Toujours dans votre acte du jour de ce 11 octobre 2024 ginnaaw Mamadou Lamine Massaly dañuy seeti ji Ahmed Ndoye Mom Nakala la jàppee li nga xamante ni mooy Pastef ñi nga xamante ni jamono ji ñoo nekk ci boppu régime bi ak li ñu bëgg a naxee Sénégalais yi jëmale ko daal ci élection yi ñu jëm le 17 novembre nañu déglu ji Ahmed Ndoye dellu si waat. luy nitu Pastef nitu Pastef da lay dig -hmm. jël kafe gi di ci meew ba sa xel di dute léegi nag boo ci nangoo xaar añ sa problème la xamu ndax dégg nga ma. non dégguñu la de. ma ne nitu Pastef. Ah. da lay dig ndékki. Mm-hmm. jël kafe gi di ci meew ba sa xel miy dute <laughs> nga toog di xaar añ. Mm-hmm. te doo gis dara. man nag du ma nangoo bokk ci ñooñu. Mm-hmm. ñi ñuy duteloo seen xel. <laughs> xam nga ndax nuru ndékki li ma la wax ni nuru na ndékki ba léegi. kon ñoko muy réaction Ahmed ndoy sénégalais bu nekk war ci jàng mu wax wax bu am solo wax boo xamante ni dafa laaj déggin ndaxte nitu Pastef mooy nit ki nga xamante da lay la dig su café di nga xalaat mais ci café bi lay téye di ci meew di ci meew di ci di ci di ci di ci ba nga fa xaar añ su maanaam day tuuti loo sa xel kon man mii kat xam naa ni léegi meew bi ñëw suukar bi ñëw mburu bi ñëw beurre bi ñëw wala ton bi wala mayonnaise bi wala saucisson bi wala omelette bi nga ciy dute di ci dute ba heure añ fekk la fa xam nga ndékki weesu na mun la noonu ndékki bi weesu na nañu xaar añ bi léegi ci biir añ boobu mu téye lii nga xamante ni maanaam mooy ceeb bi ceeb bi lay téye di ci meew di ci meew di ci meew di ci meew di ci meew mu lay duteloo ngay xaar légume di xaar diwlin di xaar di xaar jën di xaar ñu rosi di xaar ñu ñuluk di xaar ñu tey bay sóor heure reer fekk la fa xam nga kooku nax na la léegi reer boobu nag fa la lay fekk nga dem tëddi nag parce que xiif mu ngi lay bëgg lay ba nga dem nelaw ji kon nañuy jàpp ne que lépp lu ñu diggoon ci dix ans. ak projet PASTEF lu ñu digoon ci 10 ans ak livre solution lu ñu digoon ci ñaari weer suñu leen joxee majorité assemblée nationale ñu wañu dund bi jox nañ leen république du Sénégal mu lu ñu wàññi dund bi yok nañu dund bi ñi fi taxawoon ne bés bu ñu egsee ci nguur gi amul ben ndaw buy jëlati gal ndaw yi tay lañu gëna gën a jël gaal ndaxte amatuñu yaakaar toog ci kër gi ñu fi toogoon ne bés bu ñu jëlee nguur gi képp kuy napakat di nga dem jëli ji jën di jaay sa jën ba do am ko jaay jën nga ko tour ko tay jën bi gëna ndaw muy yabooy 1000 francs lay jar tay bi nga xamanteni dañu waxoon dañuy yok xeyu ndaw yi tay la ndaw yi gën a ñàkk xëy chômage baa ngi mel ni Mali tey su dee xaalis mi ngi doon circulé ci biir dëkk bi gisatuñu kenn ku investir mille francs ci biir dëkk bi ba xaalis boobu di circulé nit ci am dara kon café bi mu jëloon di ci meew di ci meew di ci meew di ci meew ba heure añ fekk la fa donc pertal sa bopp temps kon na sénégalais bu nekk jël responsabilité xam nitu passef noonu la mel Cheikh nee na homo lenn la xam saaga du manipulation wax lu dul dëgg sos

soo fa toogee nag di ko xaar pour nga lekk ceebu jën yow yaa nax sa bopp muy réaction bi nga xamante ni Ameth Ndoye def na ko ma ne kàddu bu am solo la boo xamante ni da koy dégloo ak xel bañ ko dégloo xol ba noppi daal di koy décortiquer mu fexe nag ba jël ay responsabilités pour ëllëg ak ci biir bu ko nitu Pastef naxatee kafe boo xamante ni daf ciy meew na fexe ba jël kafe bi daal di koy dëggal ba meew ñëw mburu ñëw suukar ñëw ba nga xamante ni mën nga ndékki ba suur mën a toog xaar